Bon, je voudrais dire d'abord euh, un grand bonjour à tout le monde, aux enfants qui sont là, à tous ces jeunes qui ont marché avec nous. En tout cas, j'ai eu beaucoup de bonheur et de... J'ai eu beaucoup de plaisir à venir ici, à participer à cette randonnée pédestre. Je voudrais d'abord féliciter l'association des journalistes de Thiès la presse locale de manière euh, exacte. Toutes nos félicitations pour cette initiative. Je pense que Thiès a besoin de ces manifestations qui s'inscrivent dans le cadre du maintien, de préserver aussi la paix et la cohésion sociale. Et je voudrais vous assurer que quand Thiès appelle pour la paix, pour la préservation de la cohésion sociale, pour le, rassembler les Thiessois. Quand Thiès appelle, je réponds. Mais quand on appelle pour peindre le pays en noir, pour euh, décourager les jeunes, pour leur dire qu'il n'y a plus de perspective dans ce pays, là, on ne me verra point. Mais tant qu'il s'agit de rassembler les populations, je suis prêt et je serai avec vous. Je vous renouvelle mes félicitations et vous exprime mon, engagement à vos côtés pour toutes ces initiatives que vous prendrez pour la paix et pour la stabilité de notre pays. vraiment waa ENOA jaajëfal nañ leen bu baax jaajëfal euh, ki nga xam ne moom moo jiite euh, zone militaire numéro 7 macha allah. depuis démb ñoo ngi ñoo jàppale ci li nga xam ne moom moo di euh, don de sang bi tey ñu daal di xëyaat ñoom ñoo fi njëkk macha allah ñoo ngi leen di euh, jaajëfal bu baax a baax a baax par ma voix l'association de la presse locale vous euh, di merci merci à tout le, toutes les personnes qui ont participé à cette randonnée pédestre je crois que euh, le succès se poursuit on l'a entamé avant-hier avec une formation sur la présidentielle une réussite l'après-midi forum sur l'immigration irrégulière. On a donné un visage à l'immigration irrégulière à travers des témoignages tellement poignants des personnes qui ont tout vécu cette épreuve, des personnes qui ont tout vécu cette tragédie et vraiment qui ont partagé leur douleur et leur mésaventure avec euh, la, presse. C'était également très très intéressant. Et hier, on a fait organiser une cérémonie de don de sang où vous avez constaté qu'il y a eu plus de 50 poches qui ont été collectées pour la banque de sang de l'hôpital Ahmadou Sakhin Djegen de Thiès. Une parfaite réussite euh, également. Et l'après-midi, c'était avec les politiques, les différentes formations politiques de la capitale du rail ont pris des engagements pour que ces élections se déroulent sans encombre, ces élections se déroulent dans la paix et qu'au sortir du 25 février 2024, le Sénégal puisse euh, rester euh, notre euh, cher pays de la Teranga, là où la paix et la stabilité. Et également, journalistes, on s'engage pour et cette stabilité parce que nous sommes des citoyens et nous devons des activités vraiment qui entre en droit ligne euh, de la recherche de cette stabilité et ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, c'était la randonnée pédestre avec beaucoup de joie. On a marché, on s'est étiré vraiment on, on, et, et avec la participation des jeunes. Moi, j'aime beaucoup cette image. Voilà, c'est tout petit, qui ont marché avec nous. Vraiment, ça a été très, très, très, très, très euh, important pour euh, euh, euh, Je crois que c'est le résumé des activités qu'on a à faire. Mais l'apothéose, c'est à partir de 22h. Hein, et ça se passe ici la place Momodoudia. On va chanter au rythme de Aline Baider, Borom qui va vraiment animer la soirée d'ensemble. ñu remercier bu baax ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu jàppale Ibrahima Kodou Fall bu NSTS cant ngërëm ñal na ko. ndax t-shirt ñu sol moo ñu ko jox te bokk na ci ñi nga xam ne moo ñu njëkk a appuyer pour ñu démarrer suñuy activités yi ay rapport international de Car Blaise Diagne ki nga xam ne moom moo di euh, Ablaye Dieye jiite AIBD SA moom tamit cant ngërëm ñel na ko jàppale nañ bu baax a baax a baax a baax tey nag euh, ñuy daal di amal randonnée pédestre bi ànd ceeg xale yi gis ngeen image yi ni mu rafetee xale yi ñoom tamit ñu ñëw ànd ak seen mag ànd ak seen yaay daal di amal dox lii war na nekk di firndeel nii taskatu xibaar yi moom ah, ñuy taar réew duñ ci bokk taskatu xibaar yi ñu yëngal réew mi mënuñu cee bokk parce que lii kuy kuy euh, def activités yi citoyennes yi kooku du taar réew kii woote jàmm du taar réew kii woote ñu lijjanti immigration irrégulière bi ba xale yi daal di toog ci réew mi ñooñu duñu taar réew loolu di responsabilité bi nga xam ne la presse thiessoise wane ne ko tey te yàgg na koo wane ndax yaakaar naa ne ñun duñu toog ci bato ba pare di bëgg bato bi diig ndax yaakaar naa ne ku ragal ndox mënoo feey yow yaa njëkk gaañu te bëgguñoo gaañu nag dañ fee bëgg a toog ak suñu njaboot moo tax ñuy def suñu kéemtalaay kattan di mën ay activités yoo xam ne jàmm dong lay woote ndax jàmm ci la lépp xeej moo tax suñu activité yëpp yaakaar naa ni solos bi mooy jàmm ci mim réew te Thiès à partir de Thiès àddina bi yëpp la ñu bëgg ñu dégg nii nag waa Thiès taskatu xibaar yu Thiès ñoom ci jàmm dong la ñuy dox ci jàmm dong la ñuy wax moo tax nag ñu amal li nga xam ne Mamadou 72 heures yi bu ngoonee nag fii lay doon ci place Mamadou Dia waaw lu waaye waxoon na ci dellu ndax dañuy fecc dañuy xale yi di a ngoon Aline Aline Mbaye Dièr moo ñu fas yéene wëyal ñu daal di coqi coqi tuuti rek lu waay mën ci pas de danse bég bégg <laughs> macha allah merci beaucoup